you. salaamaaleykum suñu mbokk internet yi yéen ñi safo Dental TV euh, ma campagne est de retour fii nga xamantene ne moom mooy Dental TV kan mooy def présentation bi Sister Eva la tigresse tey ñu ngi fii nag ci Tivaouane Peulh fekk fi koo xamantene ne yaakaar naa kenn dootu ko présenté fii nga xamantene ci Tivaouane Peulh ndax doom la ci fii nga xamantene ne moom mooy Tivaouane Peulh muy première euh, adjoint euh, di monsieur le maire muy kan Boubacar Ka monsieur Ka nooy naa la. maa ngi lay fay ok monsieur Ka tey Dental TV dafa jóge woon fële ñëw pour ñëw am yow benn interview yaa ngi sa émission ma campagne bu bëgg a xam kan mooy Boubacar Ka. waaw Boubacar Ka moom maa leen di nuyu leen sant ah, di sant euh, waa Tivaouane bu baax a baax a baax xam naa ne Boubacar Ka soo ko laajte fii ci Tivaouane Peulh euh, doo parce que fii la juddoo fii la yaroo fii la foowee donc euh, voilà yomb na xam. suis aussi premier adjoint au maire et puis nekk un acteur de développement. Ok, M. Ka, pourquoi vous choisissez la politique Politique, euh, bon, moi je n'étais pas politique. Dans le temps, j'ai fait mangi won def exportation Je et légumes. Comment xamé ku xam bu que nga xam nga je mbé mbé nga C'est xamé. Lool moy métier, ça mon métier. Mm-hmm. Donc euh, voilà. Politique bi def kii yàlla rek xam naa ne aussi xam nga mënoo nekk un jeune nekk fii Tivaouane Peulh jeune donc dama gis que ne dëkk bi bëri lu bari lu ma soxla mënuma nekk lu ma mën a am Tivaouane Peulh Tivaouane Peulh moom mu fi amoon immeuble aussi Tivaouane Peulh du jëriñ moo tax mu dugg ci politique bi xam naa ne Tivaouane Peulh dafa bëri lu mu manqué moo tax en 2014 ma présenté wu comme candidat mhm. donc yàlla def ma nekk premier adjoint au maire mhm. voilà depuis boobu nag maa ngi ci politique bi. ok yow yaay premier adjoint euh, monsieur le maire ñu gis ne Tivaouane Peulh nga dëkk mais ñi nga xamante ñoom ñooy waa Tivaouane Peulh yow lañ gën a jox bopp ko nga xamante moom mooy monsieur le maire lan moo ko waral li mu nekkul doomu dëkk bi la wala nu mu demee noonu. xam nga am na ay détails yoo xam ne ñun mënuñ ci sori. Mhm. xam nga yàlla moom mooy fal. Mm-hmm. yàlla fal na monsieur le maire yàlla fal na ma ma nekk premier adjoint foofu daal xam commune bi nag yaatu na ñun ñëpp ay doomu gox gox bi lañu. Mm-hmm. xam nga nous on est des aussi. Mm-hmm. xam nga bëgguma ñuy wax ne kii fii la dëkk kii dëkku fi ñun nous tous on est des nekkuñu ay burkinabé nekkuñu ay français nekkuñu ay espagnol on est des donc tey man. fan laa jóge Boubacar Ka sama cosaan fan la xam nga li ma la keneen cosaan la mais ñun ñëpp dama bëgg a xam ne on est des sénégalais mm-hmm. ah mm-hmm. am nañu droit ex nekk fu ne mm-hmm. tey sama mbokk muy nekk Mayane Fouta sama beneen mbokk muy nekk Dakar Plateau Mer donc euh, c'est un peu comme ça quoi donc yooyu moom day indi ay diversité quoi. ok monsieur Ka dañuy ñëw tuuti ci li nga xamante ne mooy événement bi fi passé yàggul dara tout récemment muy cinquantenaire bi ngeen def fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane Peulh ñu gis na yow yaa nekk l'initiateur bi nga xamante ne yow yaay def yaa doon def cinquantenaire bi ba xam yow sa idée bopp la wala dafa am koo xamante ne moom moo nekkoon derrière eh, di la wax ne la defal loolu hmm. merci beaucoup question boobu dinaa ci sawar trop mm-hmm. parce que cinquantenaire de mm-hmm. xam naa ne ñëpp xam ne ni tey Tivaouane Peulh la am juróom fukki at dama toog ak sama papa un jour maa ngi koy sant di ko gërëm mu ne ma sama mag ren la am juróom fukki at mu ne ma dëkk bi ren la am juróom fukki at sama mag boobu ren la am juróom fukki at après j'ai pensé à ça ma ne mais attends ren la Tivaouane Peulh 1968 2018 ça fait 18 ans ça fait 50 ans pourquoi pas duñ ko fësal mm-hmm. ñëpp gis que ne xale yu ndaw yi soog a juddu ñeneen ñëpp xam ne tey la Tivaouane Peulh am juróom fukki at mm-hmm. parce que tey am na dëkk yoo xam ne am na ñu am nañu ñu ngi fii ak côté mm-hmm. mais ni Tivaouane Peulh siiwee dëkk yooyu siiweewul noonu mm-hmm. donc tey su Tivaouane Peulh amee juróom fukki at ah macha allah war nañ ko mën a feete xale yi judd ñi nga xam ne dëkk si nañ fi bërki démb xamuñu dëkk bi kañ la judd ñëpp xam ne mu nekk histoire boo xam ne ñëpp dinañ xam ne Tivaouane euh, Peulh ren ren la am juróom fukki at moom moo indi ma woote réunion woo d' abord les anciens du village woo leen woo les jeunes woo les femmes ñu waxtaan si dëkk bi waxtaan si waxtaan si ak chef du village les imams les délégués de quartier les bajjanu gox les ASC ñëpp moo woo ñëpp ñëpp rafetlu ko man leen kon nañ ko feete le 14 et le 15 décembre bien vrai que préparation bi yàggul. trois semaines lañ ko def et puis voilà quoi comme moom léegi 31 décembre bientôt 2019 dootul nekk cinquantenaire moo tax ñu profité def ko noonu mais vraiment niñ ko foogee woon doxe na raw na suñu njort réussir na bu baax a baax parce que le vendredi def nañu wàcce kaamil si juma bu teewoon kon bi 9h ba heure juma vraiment keroog sax rangoñ tuuru na mag ñi jooy nañu parce que ñi ñu doon ñaanal mooy ñi nga xam ne

loolu moo tax may ñëwaat si question bi ma posé woon sax ñun ay sénégalais lañ donc sénégalais benn la muy joolaa bi pël beeg kii bien vrai que pël yi ñoo fi cosaanu mais léegi moomatuñu Tivaouane Peulh léegi ñëpp ko moom parce que ñëpp jàpp si liggéey bi tey bu mu toll fu mu toll moo tax euh, biñ ko biñ ko xalaatee organiser ko aussi euh, l'après-midi bi nekk cérémonie officielle mu nekk ku ñëw keroog ci terrain central bu Tivaouane Peulh nga xam ne bés bi taaru parce que ñëpp ñëw nañu kilifa yëpp ñëw nañu aussi te loolu lañ si doon seet message bi jàll na même xale bu ndaw ku tëddoon këram du nelaw ah xam na ne tey la Tivaouane Peulh am juróom fukki at loolu rek lañ si doon kii bi ma kiyee nag dëkk bi joxoñ ma mu ne ma yow yaa ko yow yaa ko xalaat donc yow yaay nekk coordinateur bi mu coordonné ko alhamdulilah rabbil dëkk bi yëpp nag jàpp nañ si donc keroog keroog gis naa ñoo xam ne sax feete nañ ko affaire bi du boubacar mais foo ko feete baax na soo reyee ganaar sa kër wala sa xar sax sa kër baax na ci a fêté le cinquantenaire temple mm-hmm. loolu lañ si euh, jublu woon mm-hmm. dégg naa aussi di leen wax ne aussi du politique parce que keroog ku ñëw nga xam ne amul photo Macky Sall amul photo Boubacar Kane ah tissu yi ñuy jënd bañ lay ba nekkul beige mara wala beneen couleur tissu bu weex la ñuy sol jigéen yépp ku ne keroog kuy ñëw si programme bi yaa ngi sol si tissu bu weex te tissu bu weex ku ne xam ne lan la jàmm la la ci soxla woon t-shirt yi cinquantenaire de Tivaouane amul benn photo donc amul couleur politique des fois nag les politiciens disent que yii dañ ko bëggoon politicien non. parce que moment bi la ñuy def parce que tamit da ngeen bàyyi ba nga xamante ne élection 2019 bi février ngeen tamit euh, di profité def euh, cinquantenaire Tivaouane Peulh moom moo tax ñuy médiatiser naan euh, c'est politique. Hmm. on se dit la vérité tamit. non non mënul nekk politique. Hmm. parce que su doon politique dina am beneen couleur li ma la mën a garanti li nekk ci xol yi xam nañu magu dëkk bi xam na ne politique loolu du politique loolu rek moo ma si ñor ma li si des sama yoon nekkul ci politicien ku wax si ku ci wax leneen bon yow la concerne mais ñi sos Tivaouane Peulh ak ñi nekk ci tey ci Tivaouane di fi juddoo tey ku ñëw ci terrain dafa ci football ak ñi nekkoon si jàkk ji wàccee kaam yi di jooy dañuy xam ne lii politique loolu du politique donc maa ngi sant yàlla di leen wax ne gërëm naa Tivaouane bi yépp keroog gis naa seen taxawaay muy ñépp nag amul xajjëg seen ñépp keroo benn la benn bopp la fexe nañu feete tey cinquante na loolu lañ ci soxloon Tivaouane nekk benn li mu manqué nag bëri wax nañ ci si Tivaouane tey juróom fukki at yi 1968 2018 lépp lu fi am du ñun de suñu maam yi ak suñu pàpp yi tey à partir d'aujourd'hui à partir de euh, janvier lañuy ñuy commencé ñu liggéey pour les centenaires de Tivaouane Peulh wax naa ko sant keroog di sant mag ñi parce que ñoo liggéey Tivaouane bu mu am tey ñoo doon yéen néegu ñax ñoo doon def lépp ba mu toll fu mu toll nii tey ñu nous les jeunes defaguñu dara de xam kañ la ñuy def dara centenaire mi ñu toog ñu ne kat Tivaouane bi nan la mel wax naa ne incha allah ñaan nañu yàlla suñu feete centenaire de Tivaouane Peulh Tivaouane Peulh mel ne Pagne. Tivaouane Peulh dàq Paris sax lay wax te incha dina am dina siiw aussi comme ñep donc loolu lañ si jublu woon. ok monsieur Ga euh, dañuy ñëw touti ci euh, leader yi nga xamantene ñu ngi fi ci Tivaouane parce que gis nañ ne leader yi bari nañ fi. Mm. euh te yeen ñep en général ay ay kii ngeen euh, ay apériste ngeen. ngeen ne kenn yoru leen pour euh, son excellence euh, monsieur le président de la république Macky Sall te ma gis ne boo leen génnee ci télé yi da ngeen di wax ne yéen da ngeen di jàppale euh, président da ngeen a booloo te tamit loolu ngeen di wax amul amul daal da ngeen a dispersé wu ku ci nekk day xëcc jëmale ci sa bopp lan moo waral loolu c'est normal xam nga politique moo bañ ne bu tuddi ko politique parce que loolu amul problème ñu bëri benn lañ mais ku ne aussi dafa am sa donc da ngay dem liggéey sa base parce que politicien aussi loo nekk politique politique te amoo base bopp amoo ñu nekk sa politique donc ku ne aussi c'est normal mu wane boppam mais xam nañ ni ñun ñëpp li ñor président Macky gagné le 24 février 2019. bon man gisuma ma a parce que vraiment euh, ah. parce que ci 50 bi ñëpp nekk deuxièmement. ku xamul man la moo ñu ku ne ñun na président Macky Sall gagné deux mille dix-neuf foo monte far noo monte kii fexeel rek bu carte bi nga sànnil ko président Macky Sall affaire loolu la moo ñu ñor benn bokk yaakaar du leneen su gañee ba pare nag on verra le reste. ok monsieur Ka bëgg naa xam tamit say ambition fii ci Tivaouane Peulh lan la. Eh, samay ambition kay maa si xam nga ne un jeune. day nekk premier adjoint soo nekkee maire ci politique. waaw ah, parce que dama dégg for naa ci wu bay ñu ne monsieur le maire deful dara Tivaouane Peulh amul benn réalisation boo xam ne def nañ ko fii ci Tivaouane Peulh. bon loolu moom li yàlla xam doy la yàlla xam ne def nañ wala deful ko donc mën nañu wax ne am nañ ay réalisation yu commencé def de Tivaouane Peulh parce que commune bi aussi yaatu na commune bi ñàgg ci la bokk yeneen ci la bokk parce que da ngay laal fii fu ne nga laal. oui mën nañu wax ne Tivaouane pour aussi lu bëri manqué na fi c'est vrai parce que aussi li ñu gën a jàmbat mooy marché ak garage fii Tivaouane ya Peulh bi ñu ñëwee en 2014 foo naa ne képp ko am yaa ngi wax ak yàlla suñu ñëwoon fekk benn uh, espace public boo xam ne amul dara parce que marché bi depuis boobu ñu ko bëgg a taw mais amuñ fu ñu ko teg ba lan la ñuy xalaat delloo fi mu nekkoon tabax ko parce que amul espace boo xam ne tey mën nañ ko ut pour marché. amul espace public bu fi nekk pour marché donc wër nañu bu sonn garage bi aussi la même chose nii ñu ngi soog a trouver ay solution pour nu ñuy defee d'urgence ñu tabax marché Tivaouane Peulh R plus en fi mu nekk garage bi aussi ñu jéem ko déloger le plus rapidement possible donc loolu li si des mooy di centre président de la république parce que jàppale nañu benn poste courant lañu fekkoon tey ay 12 postes mu ngi Tivaouane Peulh bi courant bi moom macha allah mu ngi ñëw cinq ndox bi aussi ñu ngi si góorgóorlu bu baax

deuxièmement di wax ne rek damay ñaan di lancer un message un appel waa Tivaouane Peulh tous les politiciens et politiciennes dañuy nekk benn dañu nekk benn suñu nekkee xol yi nekk benn incha allah rabbi dëkk bi lu lu suñu nekkee benn lu fi manquoon dina ko am mais suñu defee suñu séparé rek ah dina am ñeneen ñoo xam dañ ñëw yàq suñu liggéey donc dañu nekk benn d' abord voilà président la république du Sénégal Si ko folee ba pare dëkk bi toujours c'est important képp ku nous fële ñëw si ak fi ngay am sa mais dëkk bi dafa am ñaar képp koo xam ne fi nag di di di di wax di wax warul wax di wala di contre bi da ngay sa c'est important fi ñaan moo fi am tuwaan bu ku yeboo ñaan bi nangu na ba pare parce que dëkk yi nekk fi yëpp gis ngeen tuwaan bu nu mu mel ak ni mu siiwee donc loolu yàlla moo ko def donc nañu ànd nekk benn ay jeune lañu soxlawuñu dara li ñu soxla rek ndeysaan mooy tuwaan poy développé su développé ñun développé nañ loolu rek la ñu soxla soxluñu leneen moo tax ñuy daw ci politique ñu moo tax ñuy nekk ay acteurs de développement ak yeneen ak yeneen parce que de manière toujours politique c'est pas un métier aussi waaw politique doo ko jor rek nga ne ah ci lay kii déedéet da ngay def defi leneen ba pare ñëw def mottali ko ak politique parce que politique dëkk bi mooy soxla dëkk bi mooy soxla nga kii nga ànd ak dëkk bi pour dëkk bi am dara jaajëfal bu baax a baax kooku nag moom mooy euh, Boubacar Ka nekk premier adjoint fii nga xamante ne moom mooy mairie bu Tivaouane Peulh euh, nii rek lay demee saa su nekk ngeen ciy ànd ak Siste Eva la Tigresse ci seen émission bi nga xamante ne moom mooy ma campagne fii rek lay xewee ci Dentale TV ñu di leen jox rendez-vous beneen yoon ak keneen.